jërë ngeen jëf coowal mbës mi yoon bësaat na ko ba talaata jii di ñëw l'observateur nañu procès bu Sweet Beauté bi ñu waroon a amal démb ca chambre criminelle bu tribunalum Dakar layo bi dàq nañu ko ba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mai ci audience spéciale ci ñu koy àtte bu dee Ousmane Sonko xandul woon ci tribunal kii di Adji Sarr ak Ndeye Khady Ndiaye ak docteur Alfouseyni Gaye ñoom ñoo nga fa woon àndoon ak seeni avocat juge bi di épaulé Ndeye l'observateur nee nañu moo ne nañu renvoi yëf yi yéenekaay bi mi ngi ñu ko wax ci xëtamu njëkk ba dañu wax ne bi ñu nee suba la procès ba maanaam ci altine ji procureur bi dafa convoqué woon Ndeye te code pénal bi ci article daf ne audition bu ni mel waree ko def lu yées ñetti fan laata procès bi procès boobee Sud Quotidien nee nañu talaata jii di ñëw ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mee ci ko war àtte lii Quotidien di laaj ndax fii ak semaine dëgg gi dina feeñ ci mbiri Sud Boté yi bu ko Sarr ci xët mu njëkk yéenekaay bi muy wax ne président bu chambre criminelle dafa gis rëq-rëq yu ci enrôlement bu dossier bi maître Alaaji Diouf di avocat bu ni ñu ci yéenekaay bi dafa am ñoo xam ne dañuy daw procès bi dina bëtoo ko làqatu ndax ragal jàkkaarloo ak Adji bu dee Ousmane Sonko ko tax di wax moom Ousmane Sonko kenn ci avocatam di maître Youssou Camara mi ngi wax ci journal Les Échos ne seenu client di Ousmane Sonko bu ñu ko joxe ab convocation ba ko danañ ko conseiller ngir mu ñëw tribunal gi nag maître Youssou mi ngi dépendre ci moom nday mbili gi di Ousmane Sonko beneen avocat Ousmane Sonko di maître fay leeral ne Ousmane Sonko tollogul ci fu ñu naan nañ ko dem jàppi fa force journal Tribune mi tuddee yëf yi comité judiciaire mi ngi ñuy xibaar ne wax nañu ne Ousmane Sonko nangu naa dem tribunal ngir moytu deret tuuru ci réew mi Vox Populi nañu layoo bi lambo ay mbiri saay-saay procès Salas talaata ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mee ci la ko war a àtte coowal viol gi le témoigné ne nañu viol du ko gën a seer ci république bu Sénégal ne yi fi bari ay bés yi nit ñi duñu dem di liggéey li ñuy mobiliser ci ay force de l'ordre ak moyens yañ def nag yéenekaay bi nee nañu kenn xamul nu mu toll fi ñu toll tembe libération mi ngi ñuy xamal ne lang waa Pastef yi ñuy teg loxo lang gaa ngay gën a ne ginnaaw ay responsable parti Pastef ci Louga yu ñu jàpp ginnaaw activiste bii di Ousmane Sarr Mati Sarr ñang dib journaliste waa sûreté urbaine jàpp nañu ko démb ñoo nga ko jàppee ca ginnaaw ray moom it jàpp nañu ko ak tuumay appel à l'insurrection waaye division investigation criminelle ñoo ko jàpp ba transféré ko Dakar coordonnateur communal Pastef bu Kolda moom it jàpp nañu ko mbër mii di amaneex it yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne police bu tëngee jàppoon na ko ba téye ko ginnaaw bi ca la ko bàyyi wata police bi ñu taaloon ca Ndar sursoi ne nañu yoon teg na loxo ki ñu jàpp ne moo ko def ab marchand ambulant la bu ñu naan MS juddoo di doom ci Souleymane ak Khadikan ca quartier Pikine ca Ndar fa la dëkk yéenekaay bi nañu ba ñu koy jàpp fekk nit sursoit nee na ñu ñi def lu ni mel gendarmerie bu Kër Massar jàpp na juróom-benn ci ñoom ñun nañu dellu ci l'observateur xool yi fa waxtaan yu journal bi xëy séq ak borom FSDBJ di Cheikh Bamba Dièye dialogue bu président Macky Sall woote Cheikh Bamba nee na ba fi nekk ni ay naxay la gën a nirool li leen tax a génn ci coalition Yewwi Askan mu ne dañoo dem ba gis ci ay doxalin yu dëppawul ak démocratie wax na it ne politique ak ni ñu koy doxalee jàmmarloo ak ñi bëgg nasaxal république bi rassemblement national bu mag nee nañu moom la mouvance présidentielle bi di waajal ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru ca place de la nation ngir wane fa seenu gu ñu dogu ci défendre république bi Le Quotidien nañu ñiy bañ a dégg waxi candidature bu président Macky di waa f ministre Doudou Ka indi na moom it s ngir jàmmarloo ak ñoom L'Observateur nañu convergence des démocrates pour candidature bu Macky Sall 2024 quatre di tekki ñeent ñeent bu fukk ci yéen kay ñu xëyandool ñu bari ci ñoom xëy nañu di ñu tàgge sang bu tedd bi fi bàyyeekoo démb di Cheikh Bekay Bekay Kunta mi ne woon xalifa bu Ndiassane L'Observateur Le Quotidien Témoin Soleil National Enquête Sud Quotidien Tribune L'Info Vox Populi Bës Bi Le Jour ñoom ñëpp xëyati si ba dañu xamal it ne kilifa gu màgg gi di Cheikh bu Sidi Makhtar Kunta moo ko wutu ci jal bi mooy léegi xalifa général bu Ndiassane. abonné leen si suñu chaîne YouTube ngir ak ci bitim réew. Sénéinfo